كل يقود علم ما لم أعلم زلم نفسه الذي عداني لأنه البارس من عداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك دار مع النبي المنتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن خيرا لا يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر أدر والنفع من رحمن ليس من البيدان والسودان أدر ونو من الرحمن من الرحمن أدر ونو من الرحمن ليس من البيدان والسودان أدر ونو من الجبار ليس من الفجار والأبرار أدر ونو من الوخاب ليس من الأعداء والأحباب بسم الله الرحمن الرحيم كف يا عين صاد كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أخواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أخواه يسر لي العسر كما أخواه يسر لي العسر كما أخواه بسر لا إله إلا الله على نبي المصطفى على نبي المصطفى على نبي المصطفى يا الله سل بلا إله إلا الله صلاة مؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام في مكاننا وسلام في مكانتنا وسلام على عباد الله الصالحين والسلام على المرسلين والحمد لله bi nga xam ne macha allah fa tabarakallah moo jaboote bokk yi fi teew yëpp pour wane ne rek ne ànd gi benn la dëgg la seen Saliou bi nga xamante moo ñàkk doomam Saliou Diallo dafa doom ci kër gi lu yàgg itam ànd ak waa kër Baye Sourou ñu bokk ndey ak Baye ñoom El Hadj Bambey Sam ak El Hadj Matar ak jaboot ji yëpp pour wane ne jullit yëpp ay benn lañu di ci sant yàlla bu baax nangu dogalu suñu borom itam kii ni mu ko dogalee waaye macha allah fa tabaarakallah li ñu mën a seede daal mooy ba gannaaw bu ñu nangoo dogalu suñu borom kenn ku nekk ñëw nga fi te ñi ngay ñëw itam nangul nañu la ko waaye itam suñu gan gu tedd gi itam na mu ñëwee nangul nañ ko ko macha allah fa tabaarakallah du ñu si sori mën nañu wax rek c'est un homme multidimensionnel waaye daal benn rek lañ ci génne mooy taalibi sañ nañu wax na salaatu ala nabi buy dox la rek salli ala muhammad loolu moom sañ nañu ko moo tax itam ku ko xamoon kenn ku nekk la nga jàppoon danga koy bàyyi daw uti ko loolu sam dal na ma te ba ma yëgee ne mooy ñëw ndax taxawaayam bi nga xam ne am na ko ci diine la ma tardeel sax je cherché mon livre de chevet salaatu ala nabi bi moo tax dafa rëy ci gan gi ñu rëy antu alayhi salaatu wasalaam rekk ay itteem ku mel noonu nag dafay man a partager lépp lu xaw ci jaam loolu moo tax mu am tànk boo xam ne daf koy matale au niveau national international te lul jaam moo tax mu nekk un homme de vertu du lutter contre l'injustice ak inégalité yoo xam ne sociale loolu mooy tànkam jërëjëf Cheikh Alassane Cheikh Alassane Sène ñu ngi lay ziar bu baax a baax ça fait plaisir de lire de lire sa livre bi nga bind alayhi salaatu wasalaam si l'islam sallallahu alayhi wa sallam inna allah wal malaikatu yusalluun daf lay yóbbu ci voyage yu sori sori waaye nag da nga ñëw dans ton milieu naturel ndax ci kër gi këri daara la yàlla dafa dogal itam borom kër gi macha allah fa tabarakallah këru daara la këru alquran al karim la doom yëpp ay xafisul quran lañu woon kay seen mbokk ak seen dëkkandoo la ñuy dalal fii ci kër gi ñu ngi lay dalal jàmm di sant yu baax lu bari waaye mënul demee noonu ku xam sa jur la mu représenté ci biir réew mi ci tarixa tijaaniya ak dimension ba mu am ku ko xam-xam ko waaye ku xam sa digganteem ak Alioune Badara Bèye bii bokk si nun xam ne yow danga nga ñëw ci ak bokk yàlla na li yàlla defal jàmm yow daal soo ñëwul woon xam naa ne les actes ne valent pas leur intention sa ñaan daal jiitu na foo teg sa tànk sa naan na fa jiitu waaye dañu lay wax amin di la ñaanal jàmm yàlla na li yàlla defal jàmm ak ñi nga àndal yëpp ñu ngi lay bàllu wax fi àndal yëpp suñuy bokk lañu suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy sës en tout cas dal indi andi ngeen ñu gan gu tedd gan gu yiw gan gu sell gan goo xamee ne dañu ko dee puukare ci lu bëree bëri ñoo am yeneen connotation yoo xam ne parenthèse la diggante waajuram wu tedd ak Mor Talla Diop wala wala wala mu ngi tudd seen taw loolu xam naa ko ñu sant yàlla bu baax yàlla yàlla defal sutura ñu ngi lay dalal jàmm famille bi nag wax dëgg yàlla cër bi yàlla dafa dogal comme je disais toujours y a pas am ci cër ci kër gi ndek seen frère moo ñëw ajmataan yàlla na ko yàlla dafa jàmm leen di dalal jàmm di leen dollu kàddu gi ki mooy bàyyi xale bi ñu def c'est la même famille so lañ doxalee seen kii ba pare ñoom incha allah dañu kii teg ñu teg ànd nga vraiment ak imam Omar on le présente plus wax dëgg la macha allah lañ siy gàttal rek mooy maamam mooy Serigne Ngor Cheikh Ibrahima Mbengue macha allah maam Cheikh na Cheikh Saad boo ko cheikhal sa diggante ak Cheikh na xam naa ko sa sa goro yi dara réeru ma ci on forme la même famille yàlla ñu yàlla defal sutura jërëjëf ngeen baal ñu wa afdalu salaati wa atammu taslim ala sayyidina wa mawlana wa habibana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain maa ngi si ndigalu imam maa ngi yëkkati ay kàddu di ci toftal ci kàddu yu tedd yu am solo yu suma waajur wi toog sàmba daal di yëkkati ma lay santaat bu wér ci exposé bu am solo bii nga def mu wanewaat valeur yu mag a mag a mag yi am ci biir ngor gi te état waroon fexe ba valeur yooyu génn moo gënoon di jéem a tànc waa Ngor maa ngi lay santaat bu wér euh, sëriñ Saliou Diallo ñi ngi wax sous le contrôle de imam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaye di am yaakaar nag ci sa doom bi fi bàyyi ko ñi am yaakaar mu tàbbi ci yaa ayatu an nafsul mutmainna i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati yan na ko sunu borom def bi jaayi nabil mustafa sallallahu alayhi wa dafa am benn jigéen palestinienne bu israélien yi bombardé këram mu am sët bu am ñeenti fan mu dee ci bombardement bi laata sët bi di judd dañuy dañuy taaral kër gi ndax kii mooy premier sëtam ñu taaral kër gi bomb bi mu ñëwee raser kër gi rey doomam bu góor bi jul sët bi rey sët bi rey soxnaam ak yaayu xale bu jigéen bi ñëwoon ngir wettali doom ji wasin reyaale jànq ba ca kër ga caméra yi jël ndaw si ne loo yëg ci mettit tey ji mu ne jël nañu sama doom jël nañu sama sët rasé nañu sama kër waaye dafa am loo xamante ne mënuñu àgg ci jël ko ci man ñu ne mooy lan mu ne sama cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom a gënal lii lépp te loolu lañu lañu yékk ci jotaay bu tedd bi Seydina Omar moom lañu ñu ci jotaay bi gis nañu ci yow ab gëm yàlla bu mat sëkk bi lii xewee ci yow maa ngi santaat yàlla bi ma ñëwee tàbbi si ngor lañu ma waxoon ma yëgoon ko ca waa ngor lu raw laa fi fekkaat ci wàllu tabe ci wàllu dal ci wàllu ay nit ñu am respect ci dignité humaine ci wàllu ay nit ñoo xamee dañu digne aussi si taxawaay ci wàllu solidarité chaine de solidarité bi war a am ci réew mi bi nga xamante ne mooy cëslaayu ngor moom la ñu war a jàngale ci biir réew mi ndax gis naa ñi kër yi bindoo miir yi jógul trop sutura ma nga ca loolu beneen bi kër yi jegeyoo na sutura ma nga ca loolu cette chaîne de solidarité moo indi tey ji bi xew-xew bi amee ñëpp daw ñëw nekk ci sa wet li fi ñëw nag yaa na fi gëcc ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla wuutu fii moom mi ko indi suñ borom yàgg naa jël mais jëlagul lu moomul boobu ba léegi jël na baay jël na ndey jël na maam mais jëlagul lu moomul bari ci démb suma waajur wu tedd maa ngi demoon Njaasaan di jaale ji may nettali foofu benn xissa benn jigéen boo xam dafay yar imaam ay xar ay bëy ak i bukki mu boole leen ci benn benn enclos mm-hmm. te xam nga bukki mm-hmm. moom rek moo mën dara ci xar mm-hmm. mën dara ci béy du leen muñal waaye waa dëkk ba yëpp observé ne bukki bi lekkul xar yi lekkul béy yi ñu ne nag il faut ñu dem laaj ci sàmm lan mooy secret waa dëkk ba dem ci ndaw si nekkul lan mooy sa secret ci lii xew nii mu ne secret bi de benn la mooy si sama dund saa su ne maa ngi essayer di améliorer sama relation ak yàlla loolu may jéem di améliorer sama relation ak yàlla moom la yàlla yebbi di améliorer relation bëy yi bukki yi ak xar yi te li ma seetlu ci discours imam ba ñu toggee ci penc mi mooy waxam yépp mooy ñu fexe améliorer suñu relation ci suñu biir donc imam ñu ngi lay santaat bu baax ci sa grand exposé bi nga def fële maa ngi mettitlu di naxarlu li xew ci Ngor di ñaan yàlla mu may ñu ay autorité yow xamante ne à l'avenir dañu su problème amatee daañu ko régler avec intelligence daañu ko régle avec miséricorde mais daañu ko régler aussi dans une profonde concertation ca ña dëkkee gox ba ci seen biir histoire imaam wax na ko léegi ne terrain bi li ñu lié ak moom histoire la imaginez-vous ñu ne tey palais de la république dañu fay am beneen projet immobilier problème lay doon ci réew mi parce que li ñu lié ak moom c'est une sacralité parce que c'est la demeure de la première institution du pays loolu mooy sooke aussi terrain bi te parfois soo amee doole bu bëri nga jàkkaarloog ñoo xamante ne yaa leen ëpp doole sur le plan arme ak sur le plan taxawaay li nga sol ni ko constitution bi défendre su su soo waree jëm ca ñoom demal ca ñoom ak yërmande te loolu moo war a nekk wax dëgg yàlla la première chose bi nos forces de défense et de sécurité war a am ci réew mi problème yu bëri juddu na il y a eu des désaccords profonds entre le peuple et les dirigeants yal na fi yem donc ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam ñi ngi ànd ak yéen ànd ak les populations de Ngor di leen masaw encore di jaale ñi nga xamante ne gaañu nañu fii aussi yal na yàlla yëkkati leen nu mu gën a gaawee man daal ñëw naa tafu ci Ngor debout ñëw naa tafu aussi ci l'ensemble des associations yi dekk biir Ngor di xeex pour Ngor génn ci yi ak pour luy développer Ngor parce que am naa ci xalaat wax naa ko sànq ñi ngi ñaan daal lépp lu xewati ak lu mu mun a doon ngeen tàbbal ñu ca loolu parce que man tam fii laa dëkk ñu bàyyi ci xel bu baax maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne ànd naa avec ñu am solo ci la coalition jàmmi réew mi bi porté sama candidature à la présidentielle de 2024 incha allahu taala di nuyu aussi Babacar Diallo ma nga ba ba Casamance waaye yéenam yëpp moo doon gën a raffermir suñu relation ak ñoom Ngalla ak ñoom Ibou loolu moo doon yéeneem ba tey suñu borom mottali ko ñoom Assane été des éclaireurs ak El Ba ñëwoon nañ fi fan yële boobu maa ngi woon Abu Dhabi mais bi ma ñibbisee rek dañu organiser wu ak ñoom ngaala ñoom Ibou pour mun a teew si fii te tànk yi dootu fi géej ni ngeen ko bëggee rek noonu lañ koy doxalee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, sama mbokk jullit yi ma bokkal direct ak benn diine maa ngi nuyu yëpp di sant yëpp eh, di gërëm suñu sëriñ bi fi ñëw ak ñi mu àndal yëpp eh, waangor Ngor yëpp gërëm na leen di leen sant rawatina kër gi kër Baye Sowru di la maso coon yër gi askale ñëw bee toog ak ñun ci lu ñuy waxe julliti day yëg mbokkam eh, bi ma la gisee yëg naa la lool lool yàlla rek moo xam mu toll te maa ngi ñaan yàlla li ma yëg ci yow fekk loolu moo nekk ci yow eh, yàlla na yàlla yàlla guddal fan yi te eh, mu rafetal say mbiru yëggal la say bakkaat jéggal ñun yëpp presque ñii wax na li ma war a wax yëpp man yàgg naa ci kër gi fii presque fanweeri at maa ngi ci kër gi eh, lan moo takk ma nekk ci kër gi maa fekk ñu nekk ci diine di jàngal alquran eh, bis bu nekk guddi ak bëccëg paa bi comme nu ñu ko waxee nii eh, ku fi ñëw dina am lu mu jële ci moom nekk naa am moom fii ba yàlla jëli si ko musul na ma wax ne lu mu dul wax doom am yi su muy yeddi doom yi de na ma yeddi comme nu ko yeddee loolu moo tax ma nekk ci kër gi ba léegi bon ci gàttal wax gannaaw euh, day guddi euh, vraiment sante nañu suñu borom si julli ci yenent bi di rafete sa ñëwaay fii nga xam ne fakki nga say mbokk jullit yegg nañu aussi ñun yëpp suñu suñu sumu doom sumu doom suñu doom moo delloo sinon du ngeen fi ñëw jullit jullit bi noonu la war a mel sa jullit soo amee problème jullit moroom dañ ko yëg vraiment kontaan nañu lool kontaan nañu yool ñu ngi leen di ñaanal jam eh, yalla ngeen fekkee jam ngeen dem jam jàmm fekke jàmm jaay nabil Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen baal man <laughs> kii bi rafetul eh, wolofil bi leerul noonu <laughs> mais mun ngeen dégg li ma bëgg a wax jërëjëf kontaan naa di feddali ñoom li ñu wax rek daanaka matu seete Gilberte di wax see bi ñu lay ziar ziar mooy ziyaata dooleeku nekk wax tey si yow suñ la joxoon si baatil si télévision bi tey zaaxir yëpp moom feeñ muy jëmm ji wante nekk ñoom ñu waxee rek wallaay fii daara la góor gi li sama la waxee dafa wax ne Euh, nit ku nekk dañ ko jox kàddu ñoom am nañ fii kàddu ñoom ñëpp dañ am kàddu si biir fii am penc la fii jawiye la fële na jumaa la fële jàkka la fii jawiye la jawiye loolu ma di ko firi ne dama am jigéen ju ma kay si suba mu ne sëñ mu toog si baa bi mu ne sëñ bi la mu def dégg lu xatul arab yi mhm. mu bañ a sax ñuy toog mu làkk si arab ma ne ko narjuuka fi baa baada salaatu asri mu ne ma déedéet du ma ñëw de mu waxaat tontuwaat ma si araam ne ma ne dama urgence. man a kii ma ne waa di ma toogal ba ma may ko ndaw si. bi mu ñëwee ndaw si mu ne ma dafa di ba ñu nekk fële makaan bi ñu xëccoo mu gis ku sol lu weex di def nawaafil muur boppam bi kaalawu comme arabe dinaa fi la. mais julli na ba eggal julli gi ma ne ko rawaxaanu bërëb ba de kon. waaw naka tey rawaxaan boobu dana jokkaloo si bi ñëw tey. ba muy wax ne nañ julli ba pare sama xaal dama ne dama delloo si ndaw si suba gi kon konte lii la mënoon xabaare li jaaw wax dina ñëw seet si la tey am naa lu fàttu fàttu si yàlla muy kii dem ba kam ne dara nekkatu fi loolu yàlla jëmm ji kese yàlla kese la te moom kese la ñu déggu si yow boo koy wax si kalima xaal bi nga koy waxee si xol bi mu jóge si làmmañ bi làmmañ bi di ko joxe donte mag ji jib ni mu waxee ñun noonu lañ ko dégg bi mu waxee loolu ma malaka deeru xaalu bërëb bi la wante wallahi boo ñaanee yàlla dana ko def boo ñu ñaanalee fële tamit yàlla dana def loogu ndaxte raw xaanu bërëb boo feeñu na jël sa jëmm wane ko daw sa mu maye ma naka dee raw xaanu bërëb ba la mu ne gis naa mu julli ba yeggal te julli si xisaabu ñi gis yëpp xam ne lu sotti la amaana tey danaa la delloo ñaan gi pour fekk ni sama jigéen ba ma xëloon fajal loolu tax ma ma ne jàpp leen ko ndaxte nitu baatil jógee di diirub dëkk dana am mandarga yu ñëwal borom xam-xam mm-hmm. yu wane ne kooku bu ëssee dañuy gis njariñ ci moom mm-hmm. danaa gën ay milliards la mm-hmm. ñu wax ne danaa gën ay millions dinaa gën jamaa or kaan na xun ne xuutu wal marjaan marjaan yi yàlla wax ci alquran yowmal qiyaam noogu laa mel ci ñoom ndaxte salaatu ala nabi ngay dund fu ñu la laajee bu ñu lay interview salli ala muhammad ala wax kon kooku su ko dundee tey wallahi bu la ñaar votaloon si outil président mhm. wallahi am naa yàlla ak yonente bi te yàlla lu mu bind ñaar la ko bindee la laa mbooloo mi nga àndal tey lii sama grand frère bi wax dañ gën a di lu waat jàpp la suñu doon gis si télévision sam ñëw dafa am lu mu ñu jariñ ndaxte te ki jëmmam matale na baatil yee ñëw waxaat ma suñu jëm si bërëb bi wallahi bu jootele yàlla yàlla dana defal waa ngor nga ngeneel foofu te am nañ si yaakaar parce que moom may wax yàkkamti am na mën a man sax maa ngi koy tooñ nekk xanaa waa barsak ñoo lay jël see mën a teel jël sew ma de waaw man daa gis nañu ko julli ba julli gi yeggal mu sol lu weex tal na ma kaalaw ma ne ko alhamdulilah konte konte rawaxaanu bërëb ba ñëw na ndaxte rawaxaan bi dana jaara si yow kon yàlla yàlla defal la li nga bugg nii que suñu doom ji waxee président ngay uti ji wallahi yàlla na yàlla def wallahi baata wër sa ñett la taxawee wër la sagal la si biir naw la naw lay sët yi ak sëg ya fekk fa wër la sagal la si biir nawle sët yi ak sëg ya ñëw ñëpp naa sama seex sàngam moo ñu defoon sàngam boobu dina naa quatre-vingt-dix ans naa sikkal yëpp am am ñettaak outil kii da koy étudier xamawul fan la kii dana fekk ma London États-Unis ba Arabie Saoudite kii mën a toogal xaaral si réew mi yàlla naa toog si réew mi ba jot la ngay outil mu nekk say jàllallahu baada usri yusra yàlla la ko yàlla defal ndégte la ñu am amaana bu gént ka sax dama koy kaatire xam naa télévision yi rek waaw euh, lëngi ba sa biir du ma ko mën a yeggali damay bon suñu borom borom xam-xam yenn yi xam fa nga jëm fa jëm ak fa nga yegg ci daal jamono loo tax ma tënk ko noogu di wax ne imam bu ñu waxee daanu ko waa yir daawana an alhamdulilahi rabbi alamina laay wax di gën a di gën a sant ñoom rek sa mbokk yoo fi mbokki wakaam yi mbokki ñëpp xamal na tey kër gi sa kër la kër gi sa kër la dañ lay wax waaw góorati waaw góor waaw góor moom lañ lay wax cheikh bi yal na yàlla defal li nga bëgg bu fekkee ne ñun allahuma atini miftaahu kun ala linsani mustajaba daawaat min asrafi lbarkil xaatif wante innaka yow yàlla qadiru aji kanta ala kulli seen bi mu meew ala ma tasaahu bu la soobee faalu li ma yurid loolu nag ma yow yàlla yaaka moom yàlla ñu nambal yéene mu egg fu mu jëm jariñu ñëpp la jariñu Sénégal la salaatul fatiha salaatul fatiha bii neete ismullah mhm. xam ne yàlla wax na ko wala ga daatey naa sama masani wa qur'anil azim yàlla na ko yàlla wàcceel suñu ñaan gi ñu bare ñaan defal ñu ci tawfiq defal lu ñu ci bëgg rek yéene bokkam ne nit man na bëgg dara fekk gënul oh. fekk bu gënul yàlla ko yàlla soppi mu gën ndaxte yàlla du dàq day xëcc day randal waaw bu fekkee ne li ñuy ñaan gën na si moom mm-hmm. nekk jiite réew mi te jiite googu jikko jëpp a na ko yàlla yàlla defal ko loolu waaw am na si moom ndaxte nit ku sell sell rek la mm-hmm. diine du dem ak sell rek dana sellal mm-hmm. sell boobu gis nañ ko si yow te lu bari daal loo xam ne dama at wax na nettali mais xam nañ ne li Salim wax ñu ñaanal la yàlla nga jëm fa nga yàgg dañ ne oto mën na la koy wàcc arrêté si si Carrefour dina ko taw humidité mën na ko jàpp oto bi bëtër bi fay mais oto ya koy puus amaana sax amul permis mënu la dawal oto wante mën naa puus oto bi oto waaw doonte rek dañuy jéem allahuma yow suñu borom inna laka min abduka fakiran wa anta waqaftu bi babika karim irtifu bi ismika al azim wa iza saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'i fastajibu li ya rabbi wa in kana fi samaa'i fanzilhu wa in kana fi al-ardi fahrijhu wa in kana ba'idan fa qaribuhu wa in kana qaribuhu fa tatini fa barik li ya rabbi